n'a rien ak benn waay boo xam ne Moustapha Diop la tudd dëkk ndakaaru gii wala dëkk njàmbur gële ñëw ci ndakaaru gii ci corniche bi ñu daggal ko fi muy tabax di jaay wala mu dem buur 4 di dagg di tabax di jaay wala mu dem littoralu Géejawaay bële mhm. di dagg di jaay ça n'a absolument rien à voir mhm. loolu laay woowee manipulation te moo tax ma yaakaar ne mhm. euh, nguuru Bassirou Diomaye Faye war nañu fexe ñu organiser la communication de la présidence et du gouvernement le plus rapidement possible loolu loolu lu am solo la mhm. parce que booy seetlu média yi maa ngi wax sànq lan moo tax ñu war a am crainte ci opposition bi ñu war leen bàyyi xel mhm. opposition la boo xam ne opposition milliardaire la ñu yor xaalis lañu amuñuy nit parce que bu ñu amoon nit duñ gañe duñ leen gañe mhm. mais opposition wu ay milliardaire lañ te la ñu manoon ba ñuy jiitu ba ñuy jiite. Mhm. ba léegi ñu bari ci ñoom ñu ngi koy mën. Mhm. su fekkee ne da nga jàkkaarloog ñu mel noonu da ngay jël sa ay matuwaay parce que bu ñu mënta mobiliser. Mhm. di woote ay nit parce que fi mu toll nii soo wootee kenn du la wuyu. la mais dañuy infesté infecté li ñuy tuddee les médias de masse. médias de masse nga dégg ñenn ñi di taltali di wax. yenn leader d'opinion yi dañuy dañuy ànd ak ñoom di wax. Mhm. parce que ña nga xam ne ñoom la Bassirou Diomaye fay daan mars ba léegi ba léegi tegaguñ seen i armes. Mhm. digéré guñ ko. ils n'ont pas abandonné le combat. Mhm. ils sont pour le moment. mu ngi mel ne rek euh, keroog bi bi bi bi ëmb seen daane waa ji du mu sur le sur le kii ca Thiès yaram bi day dee dootul man dara. mais bu ñu bee këram ba dal ba dellu si. danaan ah combat la rek dañ maa daan damay defarajuwaat dem xeexiwaat. gis nga opposition dañ leen a daan. ñu toog ne teg di defaru te li xew Kaffrine bërki dem war naa ku nekk war na cee bàyyi xel xam nga Kaffrine lañ woote. oui Ablaye Sow moo ko woote. Mhm. ministre boo xam ne moom tudd nañ ko ci yu bëree bëri. ñu ne Macky Sall woote na fa. Mhm. ca téléphone xaw ma nee na ñu mobiliser wu. waaw ça que ñii fa ñu ne woon jóguñu fa. xaaju ñoo pare. xaaju ñoo pare. Mhm. te man loolu bu doon opposition la rek bu bëgg a wu nii man inquiété wu parce que dama gëm démocratie. dama gëm ne. un pouvoir ak boo mët doon da nga war a am une opposition forte moo lay dimbali. Mm-hmm. mais le danger mooy lan pour man mooy opposition bu am xaalis. Mm-hmm. Mm-hmm. opposition bu am xaalis. gis nga Ablaye Wade bi mu jëlee Sénégal en mille xam ne socialiste jiite nañ ko 40 ans. dafa lancé tout de suite la reddition des comptes. ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon ay DG ay ministre mu commencé leen topp. nangu lu ñu yor. Mm-hmm. Macky Sall bi ñëwee la même chose. Macky Sall maam biram day wax souvent dafa prêter serment jour sangam jour ba ca topp mu commencé topp gaañ. parce que xamoon na ni waa PDS yi mu yi mu bokkaloon jiite Sénégal. Mm-hmm. ñu dem opposition tey moom mu remplacer leen am nañ moyen wu continuer combat. Mm-hmm. moo tax gis nga liñ teg Karim Wade. parce que dañu jàppoon ne Karim Wade buuf na ci loo xam ne. man naa def lu ne. bu ñëpp topp ko. exactement. jii nii ñi nga xam ne ñoom la. Bassirou Diomaye fay remplacé. Mhm. dañoo buuf ci loo xam ne. ba mhm. léegi mën nañu. waaw. am na ci ñoo xam ne am na ñuy journaux. ba léegi journaux yaa ngi dox. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne am nañu ay chaîne YouTube. Mm-hmm. ba léegi mi ngi dox. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne xëy na télévision yan doon jëflanteel ba léegi ñu ngi continuer jëflanteel moo tax ma ne il faut que le gouvernement la man xaw ma euh, vraiment quel est leur plan stratégique dans tout ça. mais il faut que ñu organiser seen communication. bi ma déggee ñu ne kii nu tudd. Euh, Citizen Ousseynou Ly moom la ñu nommé ministre euh, conseiller porte-parole de la présidence mm-hmm. dama ne c'est déjà un pas mm-hmm. parce que il faut quelqu'un pour porter la parole de la présidence mm-hmm. du président parce que Bassirou Diomaye Faye c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et d'ailleurs ce n'est même pas une bonne chose qu'il parle beaucoup François Mitterrand moo doon wax ne la parole tue la fonction c'est-à-dire que jërul wax ji di di bari mais il faut mu am koo xam ne sur certaines a dans le gouvernement y a un porte-parole du gouvernement qui s'appelle Moustapha Sarré mhm. mhm. mais Sarré bi ñu ko defee porte-parole du gouvernement ba léegi mhm. man RFM laa gis mu wax fa ak RTS man jàpp naa no jàpp dama jàppoon d'ailleurs que ni bu ñu dawalee un mois moom dina def face à la presse wax leen ne leen ak yii la fi Bassirou Diomaye Faye posé gum lii ak lii ak lii ak li journaliste yi ñu ko ci laaj mu laaj ko mu tontu ko ñu jàll ci leen il faut donner la bonne information aux Sénégalais faut ñu toog yaakaar ci opposition bi à travers les réseaux sociaux ça va continuer à marcher mais ça ne règle pas tout parce que ñi ne ci réseaux sociaux yi c'est pa leur parole euh, qui euh, qui va convaincre je veux dire li nga xam ne moom la Sénégal bëgg dëgg mooy la parole officielle officielle officielle mm -hmm. c'est-à-dire tey soo gisee euh, ku mel ne Ousmane Sonko par exemple man je le comprends mm premier ministre du Sénégal il a un président boo xam ne président mooy patron mhm. te moom moom moo fal président bu ñu ko mën a waxee noonu. Mhm. tey su Ousmane Sonko bari loon ay génnam ak ay waxam. Mhm. léegi mu commencé di gêner. le président le président ci parce que nit ñi dañu dem fàtte ne c'est Bassirou Diomaye mhm. xam naa ne après dinaa ci ñëwaat bu ñuy waxti pourquoi Pastef commencé waat di relancer ay. ay activités mais li am solo mooy. il faut que ñoom waa Pastef yii. ni ñu doon def bi ñu nekkee dans l'opposition nga xam ne. plateau boo daan gis fii ci Sénégal gi mhm. ñoom ci seen bopp ñoom ñooy choisir les éléments yi ñu wóolu ñu dem fa. Mhm. débattre lañu mais boo xoolee depuis quelque temps. Mhm. depuis quelque temps soo remarqué. ci ay plateau yu bari. waa Pastef yi nga fay gis da nga naan mais kii mooy kan. ci ci voilà li nga wax dafa am solo parce que par exemple ñun ñi nekkoon ci rédaction bi doon ut ay invité ak yooyu. Mhm. parfois dañ daan contacter El Malick wala Baro. Euh, Baro Baro Babo voilà mhm. ñoom ñoo ñuy wax woo leen kii woo leen kii kale leen ak kii ak ak kii. mais mais non tu as ce problème. donc tey jii tey jii El Malick. ne peut mhm. plus faire ça. il est ministre. Ousseynou Ly. il ne peut pas. oui il il il est à la communication de la présidence. Euh, il faut que. le parti ci boppam. Mhm. choisir quelque peut-être c'est Babo je sais pas. Oui. qui se charge de ces questions-là di ko gérer. Mhm. parce que euh, boo xoolee régime mu Macky Sall. Mhm. loolu bokk na ci li leen gën a rey. xam nga lu tax. dañu toog pendant un long moment. soo leen invité fu mel ne Walfadjri ñu ñu ñu ñu envoyé la fi benn mëqkat suuf laa. mu ñëw di wax lu ko neex. su ko defee ñi koy seetaan dañ naan mais waa APR ñoo yebaate kii duñ ko mën a envoyé fii. ba boo fàttalikoo. jour bi nga xamee ne ci lañ génne le rapport sur la Covid jour bi ñu ko génne rapport Covid bi coow li bari gouvernement Macky Sall di bëgg a dee jour boobu boo seetloo plateau yi am vendredi boobu yëpp ay ministre ñoo fa dem hmm. jour boobu Moussa Bocar Thiam moo ñëw fii ci suñ copain Moussa Bocar Thiam moo ñëw fii te te d'ailleurs <laughs> pour wax la li ma lay wax nii pour pour nga comprendre gis nga bi affaire boobu amee hmm. man penco bi ma doon def jour boobu invité bi ci waa réew mi la bokk d'accord invité bi. Mhm. ci waa réew mi la bokk. Mhm. mais le gouvernement de Macky Sall bi ñu comprendre que ni lii di dem ni muy rapport Covid bii. Mhm. ñu waxul dina leen yóbbaale. xam nga kan moo jël les choses en main. Ablaye Sow. Abdoulaye Seydou Sow le ministre Ablaye Seydou Sow. man moo ma woo personnellement. ne ma kan mooy représenté waa Bennoo tey ci. penco penco. ma ne ko invité bi réew mi la bokk. mu ne ma est-ce que duñ ko remplacer ak keneen ma ne ko loolu sama yoon new ci. Mhm. man waa Bennoo laa invité ñu yónnee ma waa réew mi. Mhm. waxtaan leen seen biir mu ne ma j'appelle Yankoba Diatara boobu Yankoba était ministre. Mhm. mu woo Yankoba wax ak moom ñu d'accord seen biir. néew ki nekk réew mi na toog le ministre Moussa Bocar Thiam ministre de la communication na dem penco. Mhm. c' est la seule bu mu ñëwee penco bu mu nekkee ministre. Mhm. noonu la ñu envoyé keneen feneen keneen feneen mhm. tey jii nii le gouvernement de Ousmane Sonko. il faut au plus vite. peut être ñu ngi ne di installé ak yooyu. ñu organiser. la communication du gouvernement mm -hmm. organiser la communication de la présidence organiser la communication du parti PASTEF mm pour bañ a bàyyi cette opposition de milliardaires mhm. ñu jël les chaînes de télé mhm. parce que nag bu la ci kenn ndax muy Walfadjri di beneen mhm. les chaînes de télé ils aiment la contradiction sooy invité da ngay invité opposition invité pouvoir su fekkee ne dañu bàyyi li nga xam ne ci lañ mas a nekk soo leen woowee ñu dem jël Salma Fall ne ko soo Salma garaaw demal. Mhm. mais loolu erreur la. erreur la et puis Pastef dañu gisoon ne aussi bi ñu nekkee ci opposition bi bu ñu génnee benn fake su ñoom dañuy def communiqué officiel daal di leeral yëf yi. te oh, loolu El Malick daan ci liggéey lu bari El Malick daan na lu bari tamit non par exemple man Salma Ibrahima Fall bari na boog ñi ma ciy message. Mhm. ñenn ñi peut ñu ci gouvernement bi mais buñ ma joxee la bonne information mënu ne diw moo ma que est ce que officiellement kooku or El Malick bi muy ñu nekk dans l'opposition c'était mhm. la voix disons officielle du parti même si il n'est pas porte-parole du parti parce que mhm. c'est Abdoulaye Tall qui était le porte-parole du parti mhm. El Malick mooy la communication mais lu daan xew lu mu ndaw ndaw tu mhm. reçois un message de El Malick tout de suite mu mhm. wax la am na wala amul heure boo ko woowee danga nga koy jot mhm. mu ne la lii la demee wala nii demee mais depuis qu'il est ministre moi je comprends il n'a plus le temps euh, même boo ko messager il répond pas soo il n'est soo ko woowee si mais loolu man keroog ñu ne Ousmane Sonko daje na ak le bureau politique de son parti li ma njëkkoon xalaat mooy il va organiser très rapidement la communication de son parti parce que parti au pouvoir dafa am communication bu mu laaj parti opposition am communication mu laaj gis nga euh, quand on est dans l'opposition communication bi jafewul gouvernement bi day teg nga ne baaxul waaw fii bàcc rek doo doo xool wallaay day gouvernement day teg nga ne baaxul mhm. wala nga ne baax na mais mhm. bi ci gën mooy soo nee baaxul nga ne ñun bu ñu nekkoon lii la ñuy def loolu mooy force de proposition mhm. et loolu boo nekk opposition jafewul mais quand tu gères le pouvoir nga xam ne peut-être depuis quelque temps actes yi Bassirou Diomaye Faye di poser yëpp les Sénégalais dañ ci adhéré mais d'ici quelque temps seulement mm. tu verras que ni Bassirou Diomaye Faye dina poser actes yoo xam ne Sénégal duñ ci adhéré mm-hmm. parce que day metti ci ñoom wala comprendre uñ ko mm-hmm. su boobaa il faudra l'expliquer mm-hmm. te pour nga mën ko expliquer il faut travailler sur ça tout de suite anticiper mais soo bàyyi une opposition de milliardaires ñu am ay xarit yu mel ne Moustapha Diop ci presse bi. Mhm. te bari ci lool. lool sax ba léegi ñu ne ci lañ ne. Mm. wala yaa ngi seetaan musiba. et puis Moustapha da ngay dégg fii ñu naan la diw diw diw du ñu tudd xëy na. Mm-hmm. mais diw diw diw diw diw dañ doon recevoir chaque mois salaire bi. pour mm-hmm. défendre xëy na le régime bi nga xamante ne moo nekkoon ci ci ci sur mm-hmm. ba tey da ngay gis ni diw diw ak diw ba tey ñu ngi ci télé di wax donc ça veut dire que li ngay wax journaux yaa ngay dox waxkat yaa ngay wax ñi nekkoon ci télévision aussi ña ngay wax. donc il faut man man man def naa presse écrite lépp fukki at bind naa ci site internet ay at. Mhm. def naa télé def naa rajo. Mhm. donc presse am na lu ma ci xam tuuti. lu mu tuuti tuuti. Mhm. te d' ailleurs depuis quelque temps je suis en train de faire des recherches sur euh, les réseaux sociaux yu demee noonu parce que y' a un travail que je veux sur ça. mais dama ne la maîtriser wu ma trop les chaînes YouTube comment ça se fait les dépenses ak les salaires ak yooyu nu ñuy débrouiller. mais journalum presse écrite moom journal bi ngay jël nii di ko yor. di ko yor. Mhm. yii ci Sénégal yi nga ciy jaay mu mën laa fayal imprimerie lu tuuti la. lu tuuti la lu tuuti la. Mhm. su ma yeboo sax ne boo jëlee lops ak peut-être deux ou trois journaux mhm. ñoom ñoom mën wax ne ñun kët bu ñu jaayee bu ngoonee dina man a fay liñ imprimer journal bi waxuma la nag yeneen frais yi courant bi ndox mi téléphone bi salaire yi nangam ak nangam donc ñi ko yam di ko continuer ba léegi comment ils font comment ils font lu jar a laajte la en a la moo tax je n'accuse personne. oui parce que du du ma wax loo xam ne vérifié wu ma. Mhm. mais li am solo mooy nouveau gouvernement la. Mhm. jàkkaarlook ñoo xam ne seen doole wàññeekoo gul. Mhm. ci wàllu luñ seen mën-mënin ci wàllu koppar. seen force de fra financière. ñooñu waxuma nga dem di di leen dóor ak di leen jàpp loolu beneen affaire la loolu c'est la justice qui va faire ce travail. mais yow mi nga xam ne yow yaa yore la pouvoir yow yaay fexe ba. ñi la wóolu ba yóbbu la nga jiite nga leen di jox tout le temps la bonne information d' autant plus que. Mhm. les réseaux sociaux dafa nekk benn zone de non-droit mhm. pratiquement. benn zone de désinformation. Mhm. benn zone de manipulation extraordinaire. nga xam ne n' importe quel ki mën na cee toog wax lu ko neex am ñu ko gëm. n'importe qui mën na cee toog wax lu ko.